jërëjëf borom Touba nañ dox ñëw nañ dox ñëw jërëjëf Serigne Derece ve senin Tuğba. Derece ve senin Tuğba. Hemen al. Hep Allah.

lan nga gisee màggal gi soxna jërëjëf jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ma sës ma sës

daa lonk daa lonk sa kii sa saag bi voilà. aywa aywa aywa aywa aywa aywa aywa aywa aywa aywa aywa aywa aywa aywa Anam ah, waaw siyaar nañ ko yaa ngi fan mettere alla versa, da mettere alla versa. baloo xaal yërmande Hallelujah. amiin